yow nag benn bëgg-bëgg nga muy Seydina Muhammad soxla woo dara xooloo dara Serigne Touba Ahmadou Bamba Sall lañ ko tuddee mu tuddee boppam xaadimu rasul yow bi nga demee ba seey dëkk ci rasulillah yi bëggatoo dégg benn tur bu dul Mouhamadou Abdoulaye yàlla yàlla guddal sa fan te wéral la téere bii nga ko jox mu ubbi ak li mu yem bu fekkonte ni dañ doon listixaar ci suñu wéydi bi fi jógee rafet na njot te suñu xel dal na ki nga bëgg nag moom rek a jar te bu yemal xëy ba yàlla jur bi ñëw jur ren meeg baa xew yi ñu leen si daal ci kaw jahannama di nga xam ni ki nga bëgg rek ka jar a bëgg mooy muhammadun ahmadun xaamidun mahmudun axidun wahidun maayi xaasirun xaayibun tëhë yaasin tahiru tayibun sayidun rasulun nabiyun rasulu rahma xayimun jaamihun muxtafin muxtafa abdoulayi abibulayi safiyulayi nabiyulayi nag ku fi ñëw ordre fii yaa fi indi jamaa hmm. la ilaha illallah ah indi ko mo xaalis yow jamaa bi kii ba di jaamu jamaa ba tax ñuy doon lenn kooku nga indi a wa tayyib yaa nu indil bahr yaa nu indi samsu sudur ala waay ki rek ka amul Muhammad kuma du ko ne sa aajo je rasulallah Eh, keroog ba mu juddoo borom livre le sauveur cheikh mamadou abdalahi caam nee na min sayyidatina aminatu bintu waqti حينما خرج رسول الله رفع سبابته الى السماوات والارض sunu bàyyi coon sekk yàlla giseeg soppeem ba Seydina Muhammad ci barke livre le sauveur ci barke livre le sauveur bi sauve jaamu ci barke livre le sauveur imam Mbaye kaddu gaango foofu leen koy daanale cheikh bi nee na mu dugg si posatam kalpeem ne na ne ko lii def ko sa kalpe waaye na nga xam ni soo fi jógee tay tàmbali naa am Seydina Muhammad. te dina noppi ngaa ñàkk xaalis ba kara ngay sàngoo suuf yàlla yéex. daal dina ko yow waali bu fekkee ni gëm nga Seydina Muhammad. bëgg nga rasulullahi soo ko tuddee doom. deesu la rawati moom ci musique Sénégal nee na moom mi ko wax. suñu doom yi jigéen ñi moom la leen tuddee. moo ko wax de ay deux nee na du ko fàtte mukk. yàlla na nga am jàmm. waaye li de yàlla na nga am jàmm.